bi da ngay rafetlu xarañte bi ak pas-pas bi waaye tamit di nga gis ne que conditions yi ñu nekk tamit xaw na jafe tuuti loolu ñaari impression yooyu ngay njëkk am ñu seet ak euh, président chambre nan la ñuy def ba mën a joyanti yi nga xamante ne mooy problème yi gën a urgent waaw am na yu ñu waxtaan ak moom incha allah dinañ ci ko sumb ci li mu gën a gaaw ci pour que yooyu ñu mu nekk lo xamanteni dañ koy so parce que xam-xam bi mi ngi fi tax pas-pas bi mi ngi fi waye nak li dess rek mom moy accompagnement bi inshallah ak président dinañ seet ak président de l'union ñu ngi ni toog moy mbecté mbecté ndax dañu ñëw fekk fii ñu teeral ñu teeruñu teral ñu muy lu am solo ci ñun mbecté ci ñun waaye ba ñu ñëwee tam dafa am yoo xam ne se gis nañ ko am na ay jàngoro gis nañu pas-pas gis nañ taxawaay waaye gis nañu ay jàngoro yu bare yoo xamante ne gis nañ ko fii incha allah ak président de la chambre des métiers muy ki nga xamante ne mooy Alaaji Maguette Mbaw ak président union ak direction de l'artisanat ak sunu ay collaborateurs yëpp rapidement dinañ tok pour set yan safara lañ ci wara def yu gëna gaaw amna safara yo xamné ne urgence la gis nañ ko waxna ko président yoy war nañ ko safara ci limu gëna gaaw amna yenen yo xamanté nak dina jël touti temps yoy inshallah allah dinañ ci bayyi suñu xel dinañ set luñ ci mën waye yi gëna gaaw ma yi gëna a inshallah allah dinañ ci waxtaan loolu mom moy li nga xamné gis na ko fi gis na fi pas-pas gis naa fi taxawaay waaye gis naa tam ay jàngoro yoo xam ne war nañ koo saafara ci lu gën a gaaw. dégg nga jàmbat yi nga xam ne moom la artisan yi wax mooy problème financement problème mu local problème mu infrastructure mu matériel yooyu yëpp lan nga yaakaar mooy li ma wax léegi nii loolu yàgg nañ ci waxtaan parce que am na loo xam ne tënk nañ ko pour nan la ñuy saafara jàngoro yi chambre euh, artisan yi di jànkonteel waaye am na fii ci biir chambre ci biir. Euh, village artisanal ay jàngaro yoo xamante ne bokkul ak jàngoro yi nga xamante ne mooy jàngoro général yooyu dinañ ci ko waxtaanee waaye muy financement bi waxtaan naa ci léegi dinañ seet nan lañ ci taxaw pour ñu mën ci jot ndax financement wu artisanat bokkul ak yeneen financement yi ndax financement spécifique la kooku tamit war nañ cee taxaw locaux yi tamit wax nañ nag waxtaan nañ ci local fii ci village bi tam war nañ defaraat xar kanamam parce que mi ngi commencé jëm mag village bo xam ne 61 ba léegi la te defaraatu guñ ko defaraat bo ne dafa mengo ak jamono ji lolou tamit war nañ ci xalaat waaye nak lolou ay euh, nu mu dëti enjeu ak projet yu ak programme yu maga a mag la mais en attendant lolou amna ay programme d'urgence yo ne allah dinañ ci waxtaan muy ci financement bi muy ci tam euh, équipement yi parce que tam fi dafa laaj tam ay équipement yu mengo ak jamono te gis na xarañte waye équipement so sooxe fi touti yooyu yëpp loo xamante ne incha allah ak président union ak président chambre des métiers ak OPA yi fi nekk dinañ ci taxaw pour que li gën a gaaw ci li gën a jàmp ñu mën ko indil ay saafara. gis nañ ñoom nañu un peu par rapport à formation. waaw mooy li ma wax léegi nii yooyu yëpp lu ñu war a mën a saafara la am na ay levier pour loolu 3FPT mi ngi fi pour ay formation ONFP mi ngi fi pour ay formation ñun tam ministère de l'artisanat dañuy dem ay formation yu ñuy def mais day laaj nag ñu booleex doole yi parce que mbooloo mooy doole pour que formation yooyu gën a mën a indi njeexital ci ñi nga xam ne ñooy artisan yi. yàgg na ñoo jooy président Macky Sall pour mu utal ñu sunu ministre tutelle yàlla def mu defal ñu ko mu ñëwoon fii tey def visite village artisanal bi xool li nga xamante ne moom la waa village bi di liggéey. Euh, gis na nag xarañte bi nga xamante ne artisan yi am nañ ko te vraiment waxtaan bi mu waxtaan ak ñun suñu xel dal na am nañ yaakaar que ne secteur artisanal dina nekk secteur boo xamante ne dina jëm ci kanam ndax li ñu waxtaan ak ministre bi ak euh, kàddu yu fi bàyyi am nañ ci yaakaar. yéen lan mooy seen jafe-jafe la plupart yéen nga xam ne da ngeen waaw sunu sunu sunu secteur bi li jafe-jafe yi ñuy dund mooy dañu ñàkk euh, espace bi nga xamante ne tey kaaru touriste bu ñu ñëwee fa la ñu war a mën a taxaw ndax ku nekk xam na ne depuis bi ñu defaree tunnel bi ba léegi village artisanal dafa enclavé wu. am nañu problème mu parking bi nga xamante ne pour euh, sunu touriste bu ñu ñëwee fu ñu war a mën a gaare. ak euh, touristes yi nga xam ne tam war na mën a ñëw ci biir village artisanal bi xool li nga xamante ne ñun ci la ñuy yëngu jafe-jafe yooyu am nañ ko am nañ ay jafe-jafe financement tam parce que ay jigéen fu ñu nekk di liggéey jigéen ku ne xam ne ne amul doole kon war nañu ñu ngi ñaan président Macky Sall mu jàppale ñu ci li nga xamante ne mooy wàllu financement. waaw problème foire yi ñuy am dañuy jël foire yi il faut jaarale ko si direct euh, ministère de l' artisanal ministre bi jaarale ko si direction de l' artisanal de métier ñëw ci artisan yi mais dañuy nga xamantene ne ñoom ñi ngi jokk ci wàllu commerce léegi su ko defee dañuy jël commerçante yi yóbbu leen ñuy dem ci foire yi au lieu artisan yi dem te foire yi artisan yi ñoo ko moom yi moomuñu ko ndax produit artisanaux artisan moo la mën a wax produit bi lan lay signifier mais commerçant bi xamul li nga xamante ne moom moo nekk ñun suñu ay produit kon ñuy ñaan njuuti réew mi euh, ñi nga xamante ne day jël foire yi di ko teg seen loxo mu jël ko dindi ko jaaraleel ñu ko fi mu ñu ko war a jaaralee. ne gis na fi lu bari loo xam ne métti na ko te lu ñu war a saafara la am na si yoo xam ne nee na nañ ci daal di jublu saafara ko ma am na yoo xam ne projet la yoo xam ne kiñ ci yaakaar mooy président de la république xam naa ne bis bu nu fexee ba ba mu am audience ak moom ñu jottali ko ko ndax village artisanal Soumbédioune comme ni ma ko waxee toujours dafa bokk ci carte d'identité bu Sénégal te it muy village bi nga xam ne moo jiitu ci senegal ci euh, addina bi yëpp xam ko. bis bu nekk am dana am ci ci réew yi ci àddina bi am na ko xam jóge na fa ñëw ci village donc kon bu ñëwee fii euh, pour war xool ko wax nañ ko ñi nga xam ne jot def nañ fi ay discours discours yu baax la yoo xam ne bu ci nekk wane na taarixu artisanat wane na itam bëgg-bëggu artisan yi wane na fi ñu war a jëm ak yaakaar yi nga ne am nañ ko ci ci ci ci ci ci artisanat am ko itam ci président de la république comme ni ñu ko waxee sax ñun ñoo ngi ci gannaawam diko jappale ci lepp te japp nañ ne li lu bëgg yaakar na ne da da da lu ko am ndax président de la république procès phare yi mi def ci chaque secteur dañu bëgg mu def village artisanal bu si muy procès phare artisan yi su ko defé ñu defaraat ko ba mengo ak jamono nga xam fo tollu ci adina bi soko gisé sawar fi ñew parce que yag nañu tok di ci wax di ci di ci di ci di ci di jëf en tout cas li nga xam nak mom lañu bëgg dëgg-dëgg te di ko lancé président de la république mooy ni naa tase nga xam ne kii daa yor lee kee yor lee kee yor lee te bokkuñu sax même ministère loolu dafay tardé secteur bi dañoo bëgg lépp artisan mu dajale ko dajale ko ci ministère bi su ko dajalee ci ministère bi banqaas si ministère bi itam daal di koy aw man ko ba agsi ci suuf loolu mooy li nga xam ne si ne moom lañu moom moom moom la ñu soxla ndax loolu boo xoolee jëlee lu mel ne foire yi kii yor lee kee yor lee yor lee am na ci yoo xam ne sax xamuñu ñan ñooy artisan ñu ko dul ñu ko ñu ko te loolu dafay delloo gannaaw secteur bi comme niñ ko waxee sànq dañoo bëgg vraiment yëf yi dellu si seen loxo ñu yor ko nañ ko war a yore ndax boobaa résultat bi dana am te it président de la république li muy bëgg ci euh, réew mi bëgg ko ci euh, formation bëgg ko ci artisanat bëgg ko ci développement réew mi kenn fekku ci artisanat ndax ci wàllu formation dañuy former nit ba noppi mu nekk emploi direct kon dèjà formé nañu dèjà ba noppi am na emploi gannaaw bi loolu produit yi ñuy defar dañ koy defar mu génn bitim réew ñu jaayi ko te loolu mooy euh, dugal ko muy devise devise boobu mooy yokk réew te te loolu artisanat kenn fekk ko ci donc kon nag il faut que ñu jéem ñu jàppale vraiment euh, dugal dugal euh, xaalis bu bari comme ni ko Kassé waxe sànq ministre bi wax ko ne ne ko tey footballu Sénégal fi mu egg tay ji mais ay moyens ko fa yobbu kon nak artisanat aussi dañu bëgg ñu fa ay moyens noonu pour que réew mi gëna a suqaliku gën a xale yi am nañu liggéey parce que bo gisé ñu bari di nangul na amu ñu liggéey parce que xémé mu ñu secteur bi dañ ko wara défar ba ñi ci nekk ñu xemmeem leen ba xalé bu nekk sawar ci dugg bu woba semence bi dana wañu ak euh, ben programme bo xamanteni bi programme tournée nationale bo boo ministre moko don def aujourd'hui ñu ñu recevoir ko fi au niveau de la chambre de métier de Dakar ak au niveau du village artisanal de Soumbédioune donc ministre bi visite am euh, li nga xam ne moom lañ ci gën a retenir rek ak li nga xam ne moom lañ ko wax mu nekk li nga xam ne suñu préoccupation ak suñu doléance bokk na ci la modernisation du village artisanal de Soumbédioune et de la chambre de métiers de Dakar parce que dafa nekk euh, secteur boo xamante ni bi maanaam dafa nekk euh, benn infrastructure boo xamante ni vitrine la fii au niveau de l'artisanat sénégalais comme intervenant yëpp ni ñu ko waxee kon nag jàpp nañ loolu ministre bi bàyyi na ci xel ñun aussi proposé nañu ministre par exemple si nañu maanaam moderniser waat euh, village yi ak chambres yi une agence pour la modernisation des chambres et des villages parce que bu nous avons avec un budget minimum de 6 milliards nous avons le ministère ministère de ko bokk ak ñëpp que nous ne kon loolu nous avons xamante ni war nañ ko agence uniquement pour la modernisation des chambres et des villages artisanaux Nous bi une euh, préoccupation pour le financement financement adapté à nos réalités parce que artisan bariwul pas amul garantie yu muy joxe kon financement boobu nañ ko def loo xam dafa dépôt ak ñun li nga euh, am-am donc aussi wax nañ parce que banque classique classiques moom rejeté nañu artisan yi ba donc ce ñu dese ay fonds adaptés à nos réalités c'est aussi ministre bi dégg na ko dans le cadre de la formation parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de de de de de de produire de de de de la production de qualité ba pare nga ñëw defoo ko renforcement de capacité defoo ko dara bëgg muy concurrence concurrence extérieure te ñooñu ëpp ko ay moyens yo xamante ak ay capacité yo xamante technique yo xamante mo koy permettre mu produire plus que toi ak euh, en production de qualité donc lolu bokk na ci li nga xam mom moom ñu wax ak ministre bi jàppale ne aussi bokk na ci aussi nekkunu li nga xamante mom moy artisan yi ci secteur bi pour seen bien-être quand je parle de nekkin rek moy manam touché nañ ñëpp moy élu yeeg artisan lambda bi nekk ci place am ak yëpp parce que quand on a une entreprise artisanale on aspire à être demain un industriel kon jàpp naa ne loolu nag dafa am jaar-jaar yu mu war jaar kon japp naa daal lii la ñu rete lii daal mooy nekkoon doléance yi nga xam ne posé nañ ko ministre bi ministre bi aussi tontu nañu ci li nga xamante ni moom lañ ko posé c'est par rapport ak moom yëg na xam na parce que xam nañ ne ministre bi moom c'est un homme de Sera xam na li xew parce que doon na yor ay groupement au niveau de Thiès donc aujourd'hui japp nañ ne euh, incha allah li nga xam ne moom lañ ko wax incha allah daañu am euh, vraiment ëllëg si résultat bi nga xamante ne bi euh, moom lañ moom la ñu xaar ci moom en tout cas en résumé ce que li nga xam